Guinaar wi Toussaint Manga ñu fal mu doon njiital LONASE moom médecin boobee nag yéenekaay bi ne fas yéene doxal bi la machine à sous ji ba ñuy amal conseil des ministres ca la njiitu réew mi jëlee ay dogal nag ngir indi ay coppite ci bopp direction générale yeeg structure publique yi bokk na ca ASPEX ca DER ca ANA ca FONGIP ca 3FPT ca LONASE ci société nationale de recouvrement ca AIDIE ak feneen ak feneen moom président Diomaye fay nañu seen bopp bu baax a baax ci les nominations ginnaaw ba ñuy joytu ay poste de responsabilité ci régime bu yees bi Sud Quotidien addu jëmale ci les nominations ne mbale mi kay président Diomaye ma koy wéyal fi toll nii nag ma ngay aligné ay alliéem ku ci mel ne Seydina Omar Touré moom tabb nañu ko mu di directeur général bu agence d'assistance à la sécurité de proximité Dame Mbodj ñu daal di koy tabb mu di directeur général bu FONGIP Mariam Soda Ndiaye moom Faye kay jamono ji nag ma ngay accélérer cadence yi ginnaaw nomination yi nga xam ne rek démb def na ko ca conseil des ministres Aïda Mbodj jamono ji nag moom la ñu jiital ca bopp DER Habib Sy nekk PCA bu Senelec Toussaint Manga ñu daal di koy jiital ca bopp LONASE docteur Cheikh Oumar Diagne ñu daal di koy tabb mu di directeur de moyens généro de la présidence te mooy yëglekaay ne jamono ji kay nag président Bassirou Diomaye Faye ma ngay placé ay nitam ci bopp direction yeeg société nationale yi nag dàq nañu ci bërëb yooyee nag ku ci mel ne yaa xam mbay mi nga xam ne rek moo jiite woon la Soleil yoroom Moussa Diallo jiite woon agent judiciaire de l'État Boubacar Sadikh Bèye nag ñu jëlee ko ca bopp ANSD Kibili Touré jugee na ca bopp Sonacos te Ning Faye mi fi nekk maire bu Ndiaganiao ak Cheikh Bakhoum ñoom ñëpp dàq nañu leen ci seeni poste évidence yëglekaay moom it àddu ci nomination yi nga xam ne rek moo tukkee ci ndajem conseil des ministres yéenekaay bi ne ñëpp dugg nañu jamono ji nag ci pouvoir bi Dame Mbodj Toussaint Manga Aïda Mbodj Cheikh Oumar Diagne Habib Sy ak capitaine Touré casé nañu leen l'observateur nag àddu jëmale ci yi nomination yi mujj yi nga xam ne rek moom la président Bassirou Diomaye Faye daal di amal yéene kaay bi ne njiitu réew mi dafa dàq ab DG boo xam ne rek nekkatul doon na loo xam ne rek bokk na ca lañ doon waxtaanee ca ndajam conseil des ministres bi ñu doon amal tribune yëgle kaay fell ko ne lu jëm ci dossier milliards yi nga xam ne rek moom la dugaloon ci wàllu Covid 19 bi nag jamono ji bokk na ci li nga xam ne rek joriñ ju ñu dénk wàllu yoon teg na ko gët fas yéene koo lëñ bët ñuy xaar yeneen seeni rapport yi nga xam ne rek moom la Cour des comptes war a génnee le quotidien yëglekaay moom addu jëmale ci traitement bu jëm ci rapport bu covid 19 nag ne état bu Sénégal jamono ji nag ma ngay déconfiné bi le dossier lañ fa yëglekaay addu jëmale ci waa APR yi nga xam ne rek taxaw nañu ngir boolewaat seeni doole ginnaaw bi ñu lajjoo ci élection yi 24 mars yi ñu weesu nag APR jamono ji nag ma ngay dajalewaat ay ñoñam nag fas yéene naa wàcc ci terrain bi nag amal ab tournée boo xam ne rek ca région bu Tambacounda ak ca Kaffrine ña ngay xamle ci yëglekaay bii di Vox Populi nag taxawaay yéene taxawee rek ngir mën a jëlaat ngurug Sénégal loole nag dinañ ko jaarale ñu ne ci ay mobilisation yoo xam ne rek daañu ko amal ci wetu askanu Sénégal askanu Sénégal googee nag démb jëfandikoo nañu lii nga xam ne rek moo di berte bi yéenekaay bi bii di Le Soleil nag daal di dellu siwaat ci voyageurs yi nga xam ne rek démb mbégteeg bànneex fës na lool ci seen kanam jëwriñ di ñu dénk wàllu transport nag ma ngay sàkku ci sénégalais yi ngir ñu daal di nag lii nga xam ne moo di suñu moomeel ci biir yëglekaay bi nag moom El Malick nag ma ngay xamle ab projet bu toll ci deux cent trente milliards yoo xam ne dinañ ko taxawal mu war a doon fukki ligne ak ñeent yoo xam ne rek mille bus à gaz lay doon jëwriñ ji nag ma ngay xam ne ni daal daañu ko lancé fii ak fanweeri fan ci weeru mai démb ni nga xam ne rek noonee la askan wi songee BRT bi nag ba nga xam ne rek ñoo yëngu ci wàllu taxi bokkoo nag jamono ji ña ngay tàmbalee am ay jafe-jafe jeexale yëglekaay yi ak coowal cocaïne bi nga xam ne rek teg nañu ko loxo mu toll ci fukki kilogramme ak juróom-ñett yéenekaay yu bëree bëri xëy àddu jëmalee ci boobee cocaïne nag ne Abdoulaye Seck mi nga xam ne rek mooy doom ci Idrissa Seck nag ñii di waa OCRTIS daat